auzu billahi min asheytan rajim allahuma salli maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp di raw waa jumaa ji kii si bopp bi di sunu kilifa sunu sëriñ di cheikh imam Afia Bousso tey jii nag euh, dañoo ñëwoon fii indi fi ay barkeelu barkeelu yi nag ci euh, diir bu gàtt lañ fi ñëw nemmeeku ni am na liggéey bu ñu war a def ci biir bureau bi di fi ñuy wax régi ma ñëw sama mbokku euh, kilifa yi ñi nga xam ne ni ñoo ñoo ñoo ñooy waa xidma wax ma ne am na benn kilim bu fa yàqu ma daal di génn ni leen dégg naa leen ba ma yeggee waxtaan ak samay mbokki taalibe ñu daal di farlu lool taxaw ci liggéey bi yàlla daal di dogal ñu ma ni leen benn lañu bëgg benn laa soxla woon na si ku nekk def barkeelam benn boobu moo jur li ñu fi indi yépp te comme si diir la boo xam ne ne matul deux semaines te màggal gu jub si na sunu yéene moo doon lu ëpp lii mais yàlla dogal na ni comme yoon yëmul si benn ñu fas yéene jënd li fa nekk si si si kii li si des xaalis bi des ñu denc ko pour ubbi ko compte déwén yàlla nañ fa yàlla yóbbu jàmm ñu fekk ko yàlla nañu sëñ Tuubaa yàgg liggéeyloo climatiseur yi nag Euh, ku ñuy wax sëñ Modou sëñ Modou Dieng Kaolack moom dugal na ci loxoom cent mille francs lañ ko sasoon ne ko nagu amoo droit weesu ko ndax ku nekk da see bëgg a barkeeloo mu daal di jéggi teggi ndigal li dem jënd benn indi ñun ñu continuer di dajale ji Daam Juuf dégg ko ñu ne ko cent mille ñun tamit lan la wax parce que duñu sas kenn lu ñu mënul dañuy laaj nit ñi lu ñu yomb ñu dugal ko fu nit ñi xam te tamit euh, commerce ñu euh, defuñu leneen lu dul barkeeloo Alaaji Daam Diouf daal di daal di xëy suba teel daal di dugal benn climatiseur ñi nga xam ne ni muy samay waa kër bu ñuy wax Adja bint moom yàgg na jënd ay barrière di ko indi fii ci jumaa ji ak ngeen ko daal di si dugal loxoom ku ñuy wax sama benn doom di sama jarbaat ñu koy wax Abibatu Fall daal di si dugal loxo moom tamit mais liggéey bi yëpp ki ma siy gërëm di ko sant mooy Alaaji du Mbàkke Caw ca marché Wakaam di commerçant ndax ba mbir mi ñëwee dama ne ko kaay fii man comme yi ma yenu dafa bari te attanuma ko yow yaay jëwriñ bi yow yaay liggéey ak liggéey bi muy jokko ak waa jumaa ji bu amee lu ko jaaxal daal di woo imaam Afe Buso imaam tegaat ko ci yoon dégg nga ñuy coordonné ba tey lii ñëw leneen li nag euh, Modou Mbàkke dugal na ci loxoom dégg nga moom lañu dajale daal di ko indi muy nii ñoo ngi sant di gërëm lii sax mënoon naa ñàkk wante euh, dafa baax nit ñi booy liggéey nga di leen won fi nga jëlee li ngay liggéey ak fi nga koy yóbbu seede la ci te xarala yi loolu lay jariñ maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalu àq di ñaan. jamono fi toll mën mën ko mën ko dégg mën ko gis. wallaahi dara jamono fi toll rek. kon nag eh, ñuy sàkku ñoom ñëpp nga ñaanal leen. waaw xam nga sëñ Modou Bousso Dieng moom sëñ Modou Bousso eh, sëñ Modou Dieng ca kaw la wax dëgg yàlla. nit la koo xam ne ni saa yu moo tegee suma tànk bu ma gëstoo dama ko gis sama ginnaaw xale la mais daa bëgg lu baax te nit ku yaru la te du laajte te waxam bariwul te am na taalibe lépp lu ma mës def suba ba ngoon jëm si si jumaa ji wala jëm si si kër kilifa diine yi moo Modou bu moo Modou Dieng mu ngi topp sama ginnaaw xam nga ni ñu wax la ne la sent mille lan la sas waroo ko mu daal di aw si suuf jënd benn teg ñu ne waxaat mu jënd benn ba démb sax moom may woo ni ma def ma ne ko sëñ Modou du noonu defal ndànk defal ndànk nag du noonu ndax xër gu mu xër ak euh, bëgg a liggéeyal sëñ bi kon nag sëñ bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ngeen ñaanal leen bu ñu jox ko dem àll daal daal <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Maama ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax ci turu sunu kilifa gi di sëriñ Afia Bousso ak turu mboolem daayira muqaddamatul xidma bi nekk ci jumaa ji di nuyu bokki taalib yi nga xam ne ñoom nga seqal liggéey bi ngeen taxawu ko ba mu sont ba ngeen indi ko tey jii te lépp liggéeyal yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa rek tax liggéeyal yàlla nag ak yonent bi ak baax na waxtu wu ne waaye waxtu wi ñu toll la raw baaxe na fu ne itam waaye fii mu jëm si la kon nag euh, xel dal na ci bu baax yaakaar am na ci bu baax ñu ngi ci ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm tey ñaan ngeen daje ci ngërëmul Serigne Touba liggéey Serigne Touba nag danay dégg waxkat yi am na mbokkum waxkat muy faral di wax ne faraasu moom bu ko nit di def day xaw a niroog yàq waaye saa bu góob ñëwee weddi ko liggéey Serigne Touba nag noonu la demee boo ciy def Euh, man ngaa daanu xelan xela xelop di def ba ñëw ka lay seen day jàpp ne da yàq wala da ngay fo wala da ngay pukkaréw waaye fekk na yooyu yëpp du ko pas pasum nit ki mooy àgg foofu lii nga wax nii léegi ci sëñ Modou <laughs> waaw euh, pas pasum nit ki mooy àgg foofu léegi nii rek bi ñuy duggee nii dama ko wax ne ko yow de man jaaxal nga ba ndax bu ñu dajee dajeeg yow mag nga sol sa suñu bu def sa tànki neen di tàngal café di joxe ñu dajeeg yow Touba nga sol sa pantalon léegi nag man xuma loolu lu mu doon dal xam naa nag loolu yow ndofu murit la waaye ndofu murit ndofu murit nag murit euh, da ci ci ndof googu muy dofee ci lay àgg fa mu koy àgg fépp dof googu moo koy àggale fa mu war a àgg day dof ci nit ñi te nite ci yàlla loolu mooy acteur bi murit day dofe ci nit ñi te nite ci yàlla loolu mooy mbir mi kon nag mbir mbir mi ngi ngeen andi fi barab bi ngeen ko andi mu nekk barab buñ ko soxla lool ci waxtu wuñ ko soxlaa lool ngeen andi ko ci weeru safar bii Sëriñ Tuubaa nag neewoon na li mu liggéeyal boromam sun borom waxtu wu nekk day yokk tonom day yokk bénéfice bi waaye nag saa bu weeru safar ñëwee lu mu yokkoon day yokkaat lu ko ëpp kon nag nañ gëm ne liggéey bi lépp luñ ci mën a am ci Euh, euh, buñ ko luñ ci mënoon am ci weneen weer wu ne. weeru promotion wi bu dikkee day yokk. kon na seen euh, nag jëf ci accident. danañ leen ko defal ci liggéeyub Serigne Touba bi te liggéeyub Serigne Touba nag dara du dugg. di sooy lu ca dugg lu nekk rek borom dana jot te lam ko ci war a jote Serigne Touba moom nekkul ko ñemee bor waaye ko am pay la te it am na ngor gu toll ne lépp lu waaye jëf ci moom dana la ko fay. kon nag na seen xel dal ci ne lépp lu ngeen la joxoon suñu maam mii ak si ne ko fii ci jumaa ba teg ko ci loxo Sëñ Afe ñu ngi ñaan nag yéene jooju ñu am ak pas-pas boobu bu ñu am lépp Sëñ Tuubaa gis na ko yàlla na leen ko nangul te fulal leen ko ci barke Cheikhul Khadim di leen séentuwaat nag noonu nga ko waxee ci ci ci ci li ci kanam ndax fii ab liggéey la boo xam ne manees naa xam noo ci tàmbalee waaye doo àgg mukk waaw doo àgg mukk waaw léegi nag kon xo doon leen i xorandoom rek da leen roñ te andi lu ngeen a lu ngeen roñ rek xaj na fii waaye lu ngeen fi andi itam nag lu ngeen di jariñoo lay doon àdduna ak àllaaxira barke Cheikhul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi lu baax la ñaan daal lépp lu ñu def lu mën rek muy seen askan wi. ba doyal. amiin yaa dañ ko jot dinañ ko jot ñu daal ko nangu ñëw xam ne loolu ñu wax dëgg la ndax dañoo gis nga xorandom saa su ne ñu gis nag ngay doon dañuy dénn ci barab bi moo tax ba ni ko waxee ñu nangu ko waaye ñoom kon am nañ tawfeex bi boo dem ci baax ñu wuy ji lu baax fay jëf fay yéene amiin